donc je disais que euh, euh, réew mi yàqu-yàqu yi fi nekk ñoo bari ñu ngi wax ci wàllu corruption jàpp naa ne suñu continuer woon émission bi ba cinq heures du matin du tax sax ñu laaj xaaju dossier yi nga xamante ne ni dafa am ay coow euh, loolu yëpp nag su amee man li ma gëm mooy comme ni ko france di waxee le poisson pourrit toujours par la tête d'abord mm-hmm. maanaam ba ñu juumee ci fal ku ñu warul fal mm-hmm. ci lañu xamoon ne ci ay jafe-jafe la ñu jëm li tax ma wax loolu mooy président Macky Sall dafa ñëw en 2012 déclaré patrimoine de huit milliards waaw te Macky Sall amul industrie nekkul opérateur économique maanaam ci ci état bi la nekk pendant quatre-vingt-quatorze mois ba muy nekk DG ba ba muy nekk président assemblée nationale quatre-vingt-quatorze mois ñu calculer ne bu doon quatre vingt quatorze mois yooyu chaque weer dix millions lañ ko doon fay du am sax un milliard mu mun cee dajale huit kooku su jiitee réew mi yaakaar ngeen ne dina ñëw di dagg loxo sàcc yi wala muy euh, tere nit jël lu mu war jël. sauf que falu dañoo folli dañ doon folli. Euh, mais non mais moom wax na la fi mu ko jëlee nee dañ ko ko may. déedéet ma ne ko sauf que faluñu woon. ki ko may nee na mayu ko ko may nee na mayu ko. ki ko may na <laughs> kooku tamit bi mu koy wax. Ah, ah, ah, na mere na ko. xëy na sax moo ko mayoon. non euh, ah. mayante. xam nga xam nga souci d'argent il n'est pas terminé. non bàyyi la ko soo soo liiree. Ah. Uh-huh. patrimoine bi président Macky Sall déclaré woon di nga xam ne du may. puisque da ngay gis très clairement ñu ne la ci diggante 2002 ak 2004 am na tel et tel bien. Mm-hmm. kër gi ñuy wax Houston ne am na ko fa. ci période boobu la ko la ko mm-hmm. acquérir. donc du xaalis boo xam ne dañ koo yëkkati may ko ko lu mu ne da koo gañe ay année ay année la mhm. te boo xoolee comme nu ma ko waxee sànq post yi nga xamante ni occupé woon na ko ak liggéey yi mu doon liggéey boo fa defee comment dire dix ans sax du tax nga dajale xaalis boobu mu dajale yëpp loo waral bi nga xamante ni agsi na o pouvoir ñu mën fee gis ay directeur ay ministre yoo xamante ni dañ leen di wax très clairement que yi soo leen si demee ba ñàkk dañ leen di jëlee ci seen poste mhm. mais loolu mooy xaalis bi nga xamante ni yéen a ngi koy gérer bu leen neexee ngeen utiliser ko ci seen campagne électorale de sorte que kenn du leen gagné te daanaka réew mi loolu moo fi am kenn la ñuy teg ci benn poste mu jàpp ne non warul servir les sénégalais dafa war servir boppam servir parti bi servir ay ñooñu <coughs> tout simplement <coughs> loolu nag bu amee il faut euh, euh, euh, euh, comment dire ñu repartir à zéro te yaakaar na ak la pouvoir là Bassirou Diomaye Faye ñoo présenté un patrimoine boo xamante ni moins quarante millions ci ne te def na impôt et domaine ay année année ñu mën a njortu ne ma nga doon teg liggéeyam normalement jëlul xaalis boo xamante ni moomu ko mhm. léegi bu nekkee ci point de départ boobu lañu ñu nekk mën nañu njortu ne Sénégal fi ñu toll nii képp koo xamante ni jël nga loo fi a jël dinañ la teg ci yoon parce que kii tegaate ci yoon amul lenn luñ ko mën a jiiñ amul lenn luñ ko mën a toppee. Mhm. tout simplement. d'accord euh, également avant may ñëw ci Pape Moussa pour xam naa waxtu bi bi teg may def si euh, moo di euh, Cheikh Bamba les nominations politiques ay PCA ki yi ni mel yooyu tey ji bu fekkee ne dañu ne dañuy xeex loolu est-ce que. loolu warul jiitu également ci li nga xamante ne moo di euh, poste yi nga xamante ne ñu ngi koy tàmbali di joxeek yooyu. loolu élément bu am solo la parce que je parle d'expérience parce que jiite naa le ministère de des télécommunications et de l'économie numérique alors que ministère bi nga xam ne mooy gérer euh, téléphones yi muy Orange ak ay moroomam euh, bokkul sax ci bordu Euh, Sonatel maanaam conseil d' administration wu mhm. ministère bi amu ca place. Ah hmm. parce que ña ca am place mooy dañ naan présidence la armée nangam sangam alors que le ministère tutelle bi nga xamee ne mooy gérer la politique du secteur il n' est pas dans le board. Hmm. ce qui veut dire que ni quelque part. Euh, bare na ci ay situation anomalies yoo xamee ni day poser problème wala boog nga mën a jël benn. benn conseil d'administration nga yóbbu fa koo xamee ne amul profil bi xamul mbir mi xamul politique ngay demee mais kooku bu demee ci conseil d'administration bi nan lay mën a restituer la vision de l'État dans les actifs de l'entreprise pour que ñu mën a conformer wu taxawaay a ak dispositions yi nga xam moom la ñuy téye réew mi mm-hmm. et c'est des légions am na nit ñoo xamee ni c'est juste pour que nit ñi mën a am salaire à la fin du mois mm-hmm. point trois mille tirés te loolu aussi jàpp nañu taxawul déjà sur mon dans mon livre c'est même en 2017 ko siy wax normalement li ñu waroon ñun mooy que ni ñu créer un dispositif boo xamee ni fépp foo xamee ni dañ fa war a yóbbu benn membre ci biir le conseil d'administration nga xam ne day doon dispositif boo xam ne concurrentiel boo xamee ni nit ñi dañuy xool parmi les hauts fonctionnaires qui ont plus de vingt cinq années de service am ay experts yoo xamee ne xam nañu la ñuy def ñu mën a dem teewal état bi foofu pour mën a surveiller politique yi nga xam ne dañ koy développer foofu wa ilaa da nga gis état boo xamee ni day joxe signé ay accord ak benn entreprise nit ñi di def lu ko neex foofu te du am benn feedback bu koy mën a def permettre moo tax yenn saa même politique de prix yi eh, eh, on est dans le vent mm-hmm. parce que simplement nit ñi nekk ci conseil d'administration yi di fa représenter état d'abord xamuñu politique u état bi état bi amul lien direct ak ñoom parce que c'est juste un pouvoir discrétionnaire du président de la république qui les envoie là-bas. Mm-hmm. amuñu sax benn compte rendu bu ñuy renvoyé seen tutelle. et ça c'est un problème. parce que yow man nekk nga ministre pendant et dañ koo jooy conseil des ministres ba dugg boîte vocale mais rien à parce que yow lii xew foofu tu ne peux pas savoir. parce que mm. tu n'es pas là loolu jarul démission. bien évidemment parce que en fait da ngay xool ni à tant que yaa ngi am possibilité yow ak président bi ngeen di wax ci benn situation pour que ngeen trouver si ay solution yi war a mën a dem même boo ko seetee tey jii dans l'architecture de la présidence il y a énormément de départements yoo xamee ni dañ leen rattaché à la présidence alors que seen cër moo doon ñu delloo leen seen ministère de tutelle yi mm. pour que ministres yi am contrôle si ñoom mais question c'est des questions d'opérationnalité de de de de de de fonctionnalité mm. donc da mais je trouve que c'est je trouve que c'est encore très léger pour démissionner parce que bon boo boo démissionner ci loolu si c'est yomb ah mais loolu sa responsabilité tamit la ñuy engagé ah. non mënuñoo mënuñoo engagé sa responsabilité. xam nga ah, lan dañuy dañuy ralentir. sa liggéey sa liggéey. parce que tey jii bu dee ADIE dafa dépendre directement de la présidence. Hmm. échapper au ministère. de tutelle bi mu war a kile hmm. donc am na une partie de la politique bi ñuy dawal. du am efficacité parce que du am coordination bi ci war. est que du ëpp doole sax finalement le ministère. li bare na sax ay systèmes yoo xamee ni. Mhm. <laughs> bare bare na bare na dans l'architecture de l'État. Mm. par exemple goo demee dans l'aménagement tey jii tout dans l'aménagement et symbolisé par une agence muy ANAT. Mm. amul lien direct ak tutelle bi nga xamee ni war nañ ci mën a am. Mm, te normalement au niveau de la tutelle war na am perspective ak taxawaay bu ci bu ci war a am donc yooyu. gis nga administration boo gis euh, Mame Birame day am ay déficit ak ay retard ak ay ak ay ak ay réflexe yoo xamee ni méngoowul ak problème de développement donc saa yoo ñëwee da ngay jéem a dénoncer jéem a discuter jéem a arrangé wu pour mën a changer mbir mi. pour ñu mën ministre qui bi da ngay dénoncer ak chroniqueur yi. oh que non ministre xam nga xam nga xam nga lu tax affaire bi mu mu. solidarité gouvernementale non xam nga xam nga xam nga lu tax parce que gis nga. xëy na fii c'est pas le lieu parce que loo wax ngir sa bopp ñu ne daf koy wax parce dafay justifier wu nangam sangam mais je vous garantis que y a des gens qui savent tenir tête au président de la République et qui lui tiennent tête am na plusieurs fois ñoo xamee ni ils mettent la démission sur la table mais yooyu dafa di soo pootu mbiir bi pootu mbiir bi moo di que ni ne croyez pas que dans les gouvernements que c'est des rapports faciles il y a des ma conflictuels moi je peux vous en donner un am na boo xamee ni peut-être que qu'un jour ça ça vient reviendra sur la table ay options yoo xamee ni dañ ko war a def mais prix am na foo xam ne boo fa tollee président bi bu mu war a jël décision mu xam ni dem ngeen ba sës il a deux solutions mën na ko génne ki sa ministère affecté ko beneen ministère et le problème est terminé wala wala mu dàq la te bi ma gën a yomb. problème le problème est terminé pour celui qui prend la décision. qui va créer un autre problème non parce que parce que la conséquence après. mooy que ni quand un ministre refuse une situation. et que le président de la République def plusieurs efforts pour concilier mu bañ. dëgg fi mu dëgg. parce que il pense que parce que mu parce que du boobu rek ah. je vous parle je vous parle. ban nga ñu si je vous parle de mon cas personnel et sur cas bien précis. mais li am solo dina dem ba jamono yoo xamee ni. Mhm. en tant que président de la République dina xam ni yow mii doo mën a dem fii. d'accord il a deux solutions ou te débarquer ou te ou sortir le problème. léegi nag kam koy moo waroon moom it am fullaay xam ne nii la demee mën a ko jëluma. non mais gis nga problème bi xam nga. da Sénégal amaguñu culture boobu Pa Moussa c'est beaucoup plus compliqué que ça d'accord Pa Moussa amoon na parfois des Charles va me taper sur les doigts ak ay ci suufam la nekk Euh, je pense yaa ngi. ay conflits yu dul euh, directeur Sénélec ba ak ministère de tutelle. mais y' a pire ci ay eu des y' mhm. qui ont défié des ministres. Mhm. est-ce que xam nga lu tax loolu. ah bon parce que parce que que ni ils juste de couverture. Mhm. et de posture yoo xamee ni mën na leen permettre ñu traiter directement ak mbir mi te te dans l'architecture de l'État gis nga am na si affaire yoo xamee ni moo tax moo tax président de la République bii ñu am nii di Bassirou il faut que ñu ñaanal ko jàppale ko parce que am na ñoo xamee ni seen spécialité xam nga lan la moo di que ni bu ñu téyee dara ci biir état bi yéen di gën a arrangé moo ñu daw fair tout ce qu'il faut pour ñu affecter leen à la présidence maanaam dans la distribution des des trucs ñu rocci leen ci ministère yu nekk décret de répartition bi mooy def loolu ñu ñu xoolal ko ñu rattaché la ñu ñu rocci leen foofu yóbbu leen présidence bi la ñuy dindi xam nga xam nga boo demee présidence c'est que ça veut dire mais tu rentres dans un monstre immense boo xamee ni y a plus de contrôle amul contrôle amul dara il y a plus de contrôle et le ministre il ne peut pas avoir de visibilité là-dessus et toi tu vas disparaître rarement tu vas voir ton président yenn saa yi nga def affaire voilà mais mais mais am na ay ay ay direction yu mu créé ay délégation yu si bëri rattaché wuñ ci benn ministère euh, ay délégation yor bourse familiale ay DGPU affaire yooyu noonu président y' a pas d' articulation amul duñu rend compte kenn. te te te DGPU boobu ngay wax noonu li fa xew c' est même pas la peine. DGPU bien mais foofu amul benn euh, ministère bu mu rattaché wu par exemple léegi joxe suuf yi par ci par là. Ah, ba finalement kon gis maam gis nga ni c' est aussi <laughs> beaucoup plus carabiné que tu le penses. politique bi aussi donc donc. Euh, Cheikh Bamba man jàpp naa ne euh, actuellement loolu noonu bokk na ci liggéey yi gën am solo yoo xamante ne président Diomaye war na ci teg cest ah, kon euh, tey jii le chantier est vaste li ñuy wax la pression ayobéyenne euh, à quand on va voir les prémices de <laughs> solution non 100 jours yi la war a kii rek la war a jur ah. parce que am yoo xamante ne kenn mënu koo régler ci 100 jours lekk nekk ce n'est pas possible mais pour ces 100 là qu'est-ce qu'on va voir dafa am dafa am ay ay ay dynamique boo xamee ne moom la ñu soxla oui mm. parce que gis nga comme ni mu leen waxee bu ñu xëyoon di yàq fii bu ñu fi amoon une heure bu ñu ko bëggee defaraat on devra au minimum avoir deux heures et trois heures même parfois. pour defar pour defaraat ko. à l'aune de ce pays. dans foo si dem am na ay anomalies yu mel noonu déjà décrété répartition man de au niveau de la présidence ñu bare bare war nañ leen fa génne. pour que ñu mën a am culture de redevabilité. désengorger carrément. Mmh. soumission ci benn hiérarchie. parce que gis nga loolu boo ko amulee lu leen neex la ñuy def. on a vu des agences yoo xamee ni ils ont fait des choses inimaginables caaxaan kese la ñuy def ak lekk xaalis. mais est que loolu c'est pas pour euh, comment dire mu échapper contrôle député yi. loolu. Ah, non ça va non échappé wul député. mais ban député mooy contrôlé yow tamit Mame Birame. ban assemblée mooy contrôlé xam nga loolu man Birame. assemblée loolu la est-ce qu'il joue le rôle xam nga loolu ci assemblée beneen dossier la waat. Mhm. ci mhm. la ñu war a def ci assemblée. voilà pour mën a permettre euh, député bi. muy jouer son rôle mu mën a jouer rôle boobu. te du yem rek ci am ay loi dafa war a tàmbali d'abord ci choix bi conditions yi ñu koy tànnee ak nan lay yegsee foofu ba ñu yegg foofu. mais li ñuy wax nii problème de rationalité même de la dépense publique à l'intérieur de l'État et dans mmh. l'exécutif mm-hmm. foofu premier aspect bi moo di euh, gis nga euh, le président de la République dafa di charge bu mm-hmm. rëy rëy boo mm-hmm. xamee ni vraiment di toppatoo agence Pa Moussa tu termines après ak agence toll ak na muy liggéey du si xaj mm. d'accord Pa Moussa termine amu ci wàll soxna euh, Awa li ma li ma li ma doon wax mooy c'est-à-dire euh, loolu noonu euh, je pense le président Diomaye il a les coups de France moo tax am na yu bëri yoo xamante ne bon c'est le peuple sénégalais qui est bi tey parce que mën nañ la fal mais après ñoom bu ñu paree dañuy dellu seen liggéey yow yaay am responsabilité c'est-à-dire accompagnement boobu noonu ñuy dem ñoom li leen war dañ koy def ndax xam nañ voté xam nañ li ci mais bu ñu paree pour toppaat dynamique boobu noonu dañ lay jox les pleins pouvoirs moom la président pour mu mën a doxal mais Sénégal le mal est tellement profond que dafay dépasser sax parfois les états majors politiques Mame Abdoul Aziz Dabakh daan na wax ne mu ne ñett yi ñoo gën a mën a yàq réew boroom xam-xam bu mànduwul boroom alal bu kàccoor ak mag bu tayal Sénégal ñett yooyu ci année yi ñu jógee dafay bari torop torop torop surtout ay mag yu euh, tayal parce que man jàpp naa euh, te yow da nga koy faral di wax c'est par l'inaction des hommes de bien que le mal triomphe et nag je pense euh, Sénégal dañoo demoon ba borom xam-xam sax boo ko nee kaay wax day bañ. Mhm. parce que jàpp ak woy ak invective yeeg yenn kii du coup réorganisation bi mu laaj crise bi ñuy dund c'est une crise politique c'est une crise économique mais c'est une crise sociale très profonde <coughs> exactement il faut être froid ba pare mën a tranché te je pense que ni Bassirou Diomaye euh, président il a les coups de franche pour mën a gérer te moom comprendre na il est issu de Ndiaga Euh, fait la faculté de droit bi nga xamante ne maam Biram ay ngénte tubaab la woon. Hmm? donc xam na réalité yooyu noonu xam na li euh, Sénégal de profondeur di dund ko loolu jarul ñu koy nettali maanaam kenn wër ko sax benn lobbying wër ko. war a mën a nekk ci noppam ba du xamati réalité yi loolu moom mën nañ ko wax ku nekk ba mu des président Diomaye maintenant euh, agence yeeg yenn kii dafay am yoo xamante ne il faut que ñu ciy duut baaraam mu leer nañ lëkkin fat palace depuis Thierno Lo bi muy nekk ministre ba léegi lañ ko jox nit boo xamante ne contrat bi xamuñ lan la moom ci boppam du ko waree. hôtel ba mel nu kenn nu kenn xamul. nit ñi nekk ay multi multi symbolique ah franc symbolique lañ ko ko jox. franc xoolal loolu. ci loo xamante ne sax sorté des. ña fay liggéey am na ngay wax ni exemple la boo xamante ne nii. par exemple euh, King Fat boobu. doon na échappé contrôle ministre bi nga xamante ni c'est Sousa Touré bu amee bu amee bu amee tension sax ak moom ak ministère du tourisme ministre bi mooy tëb du benn du ñaari yoon directeur IPRES moo moo choisir directeur IPRES c'est pas le ministre qui l'avait choisi moo bu fàtte ne tamit c'est IPRES le mal est profond defe naa ne tey jii moom ak journaliste yu bëri dinañu reconversion jot na lanceur d'alerte vous en savez trop benn benn question rek benn question rek parce que démb si heure bi lañ am un premier ministre ba léegi amaguñ gouvernement déjà bon on suppose que ni xëy na dootul yàgg parce que il faut qu'on ait un gouvernement pour que affaire yi gën a gaaw euh, ñi ngi wax rationalisation des partis politiques mais li ma lay laaj mooy est-ce que xalaatoo ni aussi war nañu rationaliser les élections mooy euh, tey bu élection di jub si dinañ bu defaat plateau yi débat yu intéressant yi ñuy def nii dootuñu ko permettre faw ñu toog kii fa kii mooy nar a gañe dëkkam ki moo ëpp doole kii moo ëpp doole est-ce que boobu aussi warul bokk ci urgence yi ñuy jël mooy ba ñu toog diire bu yàgg boo xam ne élection daam xaw ma nag nan lañ koy xalaatee mais ñu jéem a xool daal naka lay naka lay mën a demee. waaw xam nga am réew moom élection moom mënuñu ko supprimer. oui bien sûr ñu am ko calendrier. waaw calendrier bi moom. voilà adapté ko. mais aussi parfois réalité politique yi ngay dund mooy imposer yenn forme de transformation ak élection yi man jàpp naa ne du sax problème bi du foofu xam nga problème bi fan la nekk gis nga États-Unis on a là-bas un élu pour cinq cent soixante quinze mille américains fii on a un élu pour soixante mille ou soixante dix mille sénégalais maanaam bare waayu député joxu la qualité. barewaayu conseillers municipaux joxu la qualité. oui te suñu problème yi dëgg dëgg dëgg dëgg mooy si suñu assemblée yi. Euh, dañoo xaw a jël du tout venant ba nga xamee ni qualité bi day wàññeeku trop. Mhm. da nga jël ab commune ñu ne cent personnes mu wóor ni la vingt personnes rek ñoo fay liggéey liggéey bi wala ñoo am aptitude def liggéey bi. Mhm. ñun assemblée nationale plusieurs fois et pendant plusieurs mandats di nga gis nit koo xamee ne daf nekk cinq du jël kàddu du intervenir ci commission. absentéisme. non mais day toog day tàccu rek. du jël kàddu ci plénière du jël kàddu ci commission. xamul dara. ko ko ko xam nga poste la boo xamee ni dénk nga ko benn boo xam ne amul njëriñ. Mhm. alors que ni man fi li ma jàpp ni moo ñuy dimbali. moo di que ni bu fekkonte ni dañu am benn commission d'équivalence. nga xamee ni diw journaliste expert la kii euh, docteur en économie la mhm. kii commerçant la ñoom ñëpp sans discrimination jàng tubaab jàng nga wolof nga dem jaar foofu ñooñee nattu la seet ndax yow am nga aptitude yi pas ci njàngum tubaab mais aptitude xam réew mi xam fi réew mi toll ak li réew mi laaj pour que ñu mën la jox tus boo xamee ni dina la mën a permettre nga mën a participer ci élection yi je pense que ni loolu bu amoon dina dimbali parti politique yi ba clientélisme bi am di nga am benn filtre boo xamee ne dépendrewul sax ci parti bi muy mën a permettre ñu mën ko taxaw mais bariwaay bi laay wax euh, Cheikh Bamba waaw bariwaay élection maa ngi si ñëw ak nga def élection présidentielle beneen année bi élection locale après élection yoo xam ne ñu bari dañuy couplé des fois am mandat gars day jeex oui day jeex mais des fois ci li ko indi mooy ay tas wala repoussé boo repoussé mm-hmm. élection des fois day empiété ci beneen boo xam ne xëy na dina doon doon na jege si xam nga xam nga loolu